wasiyatun fi ixlaasi al ibadati lillahi dénkaane bi ci tegu mooy cheikh na tijaani sharif dénk gim dénk jullit ñëpp ñi sellal ak jaamu jaamu yàlla yomb na bëri na waaye li jafe mooy sellal ko te jëf yi ay jëmm lañ ruuxu gëleen yi tax a dund mooy sellal tabaarakallaahu moo tax jëf lum rëy rëy rëy bu àndut ak sellal rekk yàqu moo tax Seexu Tijaan dénk jullit ñi nañ lu bay sellal jëf yi boo jàngee alquran yàlla day wax ni digaluma leen lu dul ngeen jaamu ma waaye nag condition bi mooy da ngeen ko sellal wama umiru illa li yabudullaha muxlisina lahu diina xunafaa waaye jëf lum rëy rëy rëy bu àndut ak sellal dara nekkatut fa moo tax sellal secret bu rëy la ci diggante jaamab yàlla bi ak yàlla sellal jaamu la goo xam ne yàlla rek ko xam moo tax moom rek moo ko mën a fay waaye sellal malaaka munu koo xam ba koy bind malaaka munu koo xam bañ ko koy fayloo moo tax ki ko xam kenn la mooy yàlla yàlla moo mën a xam ko tabaarakallaahu moom rekk moo ko mën a fay moo tax kon Cheikhu Tidiane Cherif radiallahu anhu digal jullit ñi rawatina taalibe yi nañu góorgóorlu ci sellal jëf yi ci wax ci pas-pas ci jëflante boo demee ibnu la al askandari dafa wax ne al amalu suwarun qaimatun wa arwaxuha wujudu sirril ixlaasi fiha mu ne jëf yëpp ay nataal la ay jëmm yu taxaw la ruuxuy jëf yooya mana a alimenté jëf yi bañ mën a dund dundal ga koy jëf mi ngi mën a amee ci sellal sellal nag boo ko bëggee firi mooy wéetal xol bi ci jaamu borom bi fexe ba génnee ca xayriyaat ya yàlla rek rek fees sa xol bi nga teewlu ko ci jëf ji te moom rek tamit nga tax nga jëf-jëf ji jëfoo ko ngir ku la sant jëfoo ko ngir ragal ku la ŋàññi jëfoo ko ngir bëgg ku la siiwal waaye da ko koo jëf rek li wajhillaahil yàlla waxoon ba mu ñett li xisaab imaamu ali innama nutimukum li wajhillaahi laa nuridu minkum jazaan wala sukuran lu ama am solo la moo tax wal ixlaasu ifraadul qalbi li ibadati rabbi moom sellal nag buñ la laajoon luy sekkare ba lubb ba lan la mooy sidqu mooy dëggal sidq bi nga xam ne moom la ñuy firee al mu'bar anhu bi tabarri min al xawli wal quwati fexe ba dañ su meeku ci pexe su meeku ci kartan nga wane na yow tus nga mënut tus nga defut lanti noor nga rek bu yàlla sotti dawlin bi ci yow mu jaar ca biron ba id laa yatimmu illa bihi maanaam sellal mënta wéer ci la dëggu dëggu mënta wér ci lu duhut summeeku ki lépp ci xeeti jëf yi nga bayee ko yàlla moo tax kon nag sellal mooy dàq ngistal dàq bokkaale gu nëbbu bokkaale gu nëbbu gi nga xam ne moo lay waral nga dàq xiim sa bopp ge ak ak gendeeku sa bakkan ak yeneen yi nga xam ne kum nekk ci yow rek dafa lay yàqal kon nag sellal am na solo xadis ba dafa wax muy hadisul qudsi yu ba ana aghna shuraka'i ani shirki man ashraka ma'i ghayri taraktuhu wa sharikahu man yàlla aji xoomal laa walis ñi may bokkaaleeg ku ngeen ma bëgg a ma bakkoog la ngeen ma bokkaaleeg moom xam ne man xoomal naa su ko defee nag bu ëllëgee ma balaa kooka du la mën a fay nga pert kon nag tabaarakallaahu yonentu bi laaj nañ ko xanil ixlaas ah bañ na ko waaw yow yonent bi lan mooy ixlaas muy sellal mu ne ba ma ko laajee jibril mu ne ñu laaj ko jibril jibril ne ba ma ko laaje sama borom mu jibril laaj ko sama borom mu ne ko sirrun min asrar yi sekkare la ci samay sekkare udiuhu qalba man ahbabtu min ibadi maa koy dénk ci xolob képp koo xam ne sopp naa ko ci samay jaam wala yatlaw alayhi malakun fa yaktubuhu maanaam malaaka mënta yër ak sellal xeggul fa ba koy mën a bind waa wala shaytaanun fa yufsidahu saytaane mënu koo yër ba koy mën a yàq moo tax kon maqaamu ihsaan lu jara lu lu maqaamal lu jara am solo lu am solo la nañ ci bàyyi xel moom la hadis ba mi ne an taabuda laa ka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka kon nag ixlaas boobu la cheikh na tijaani def muy ab wasiyatu mu dénk ko jëmee ko ci mbooleem taalibe yi moo tax maam xalifa ne kitaabatun am mbind la ilaa maanaam oxra baneen ahbaabi jëmee ko ci ay soppeem jaalana allahu yàl na yàlla def ñu min ashaabi ñi bokk ci taalibe cheikh yi wa naswa yaxab dénkaane ba min baadi zikril basmala gannaa tudd bismillahi rahmaani rahim kama hakaa kom na ko nettali anu jëlee ca moom mooy way way dëgëri toxal toxalkat yi mooy toxalkat yi nga xam ne homme de confiance lañ mën nañoo sukkandiku ci seeni wax ñoo ko toxal ku mel ni Rimaax bu Cheikh Omar Fuutiyu ku mel ni imaamu Hajoojiyu ku mel ni Seydou Sukayrij ci wa ci ci kasful hijab ku mel ni tabaarakallaahu Seydi Haliw Harasim ñooña ñoo toxalee wax ji ma bëgg a nettali ci Seexu Tijaan wa baadu gannaaw julli ak tudd yàlla ak bàkk ko faalam xamal ne anna za taalluq naka borom ak xaju gi bi talabi dunya dafa nekk kuy mukki ci sàkko àdduna mu bañ koo def bi baax di rufaka ji di ànd ak lenn ci ay setti àdduna ya mu ne taalluq bu wér ci yàlla ak a jafe taalluq bu wér ci yàlla ko ko bëgg da ngay fexe ba sa xol bi bum aju ci àdduna di ko sàkku sa xol bi bis bu ajoo ci àdduna di ko sàkku rek taalluq manta ne ndax xol manta ñaari aji waaye mënul nekk ci benn xol xol bi bëgg yàlla bëgg àdduna manta nekk mukk moom kay kenn nga cay tànn rek kenn ka tabaarakallaahu ñàkk moo tax boo demee ca nassu ba cheikh dafay wax ne radiallahu taala anhu a ah, wa baadu fa taalluquka bilxawaasi fi talabi dunia wa agradiha wa shahawaatiha wa anta mashgulun bi itlaaqi lisaanika fi lgibati wannamima wa ma laa yurdi llah taala wa munhamikun fi lbucdi an illah taala laa ribha fi hadihi tijaara ila taab seexu tijaan mune ne yow mi bëgg nga bëgg a xaju ca gaayu jagooya ñi nga xam ne boromi ay xawaas lañ aa yàlla may na leen ay xusuusiyaat ñu nekk ahlul xawaas ci sàkku àdduna ak i xememtéefam ak i bànneexam yow nga nekk ku soxloo kuñ soxloo nga boyal sa làmmiñ wi ci jëw nit ñi ak di rambaaje ak ci lépp luy gërëm loo lu dul yàlla luy loo xam ne yàlla gërëmu ko yow moomu yaa ngi ci commerce boo xam ne bénéfice du ci am loolu nag wax Seexu Tijaan wax moom lay maam Khalifa yi way nii nag ne a ah, wa baadu faalam anna sa taalluqa bi talabi dunia bi baadi rufaqa naka boro ak xaju gile ci sa ànd ak sàkk àdduna ak lenn ci ay nitu adduna mooy ay rufaqa ay setteem wa shahawaatiha ak i bànneexam te mooma ànd ak loolu lépp ma ngay bi zikri xiibati ci tudd ak jëw wa bi namima ak rambaaj fa haadi fa fii kii ma wax mus maanaam musibatun kuñ musibal la wallahi kuñ musibal la kooku lii musiba mu mag a mag la ci moom mënta nekk de fa fa fa fii lii musibatun musiba mu mag la boromam tamit musaabun kuñ musibal la mu nekk fii kulli ma lam yardahu llaahu ci lépp loo xam ne gërëmut ko yàlla ala kawe na munhamikan muy aji nuur ca ay munhamikan fii kulli ma lam yardahullaa waaye tamit euh, mubtilan muy aji yàqu an walis ko fil bu'd di ci sori nekk sori yàlla kii de li gën a wér laa rib xadiit ak bénéfice fii sa tajri ci mi la yaxantu ila taxab lu dul sonn wa qillatu safri ak néew ak duufu bi sa bon na talab càkkutéef ku bëgg a ci yàlla ci sa xol aju gu wér da fase àdduna ak ñoñam fase ñu bon ñi fase lu bon ñi lu bon li fasel jëw ak rambaaj fasel lépp lu yàlla gërëmut fasel àdduna ak lim ëmb ci lu bon nga fexe nag ba connecté wu ci yàlla ci li yàlla bëgg mu tofal ca tamit ne waxlam bi annal xawda naka kuus fi baxri tamaay ci géej xemem téef képp koo xam ne yaa ngi xuus ci géej xemem téef ka waari di saraabi fa mel ni kuy rot njon njonox fa dax baxi li saraabi ngir naan xam nga ku seen njonox jàpp ne ndox la noo gën a waaxoo di ko jege sa yaakaar gën di tas ndax noo ko gën a jegee rek mu gën laa xamal ne li nga yaakaaroon duhut noona kon xuus ci gémmi xememteef ci képp koo xam ne faxagu ci àdduna aa wallahi mi ngi mel ni koo xam ne dafa bëgg a duufu ci njonox moom la wax ca wisar ba ne wa inna al xawda fi baxri tamaai wal mutaalliqu biha kalladi yuridu zafara bi saraabi baqiatin kooku nag kon xam nga mënta dem kon nag na ci bàyyi xel waaye nag wa innamal xawaasu a wa asraaruha laa yatamakkanu minha ahadun min xalqila ila ahadu rajulayni a léegi nag Seexu Tijaan tofal cane ne ku képp koo xam ne da nga bëgg da nga def dara ngir xemem ca mbiram àdduna bëgg ne sa xol bi na aju ci yàlla manta ne mi ngi mel ni ku mar ba bëgg a dee bëgg naan seen njunox tax muy waaxu nu mu ko gën a jege yaakaaram gën a tas mam xalifa ne waxlam xamal bi anna sirra naka secret mooy mbóot mi bi tam kii ni aji nekk la ci dëgër mooy dal te laayeta makkanu du dalee li xayri isnay ni lu dul ñaar secret gaay yàlla yi nga gis ko man koo jariñoo jariñu ca ñaar rekk ñoo ca mën a jëriñu mooy xawaatim yeeg a jadwal yeeg ak turi asma yeeg nga fekk ko ci téere bëgg koo jëriñoo a doo ca mën a jëriñu moo tardeel ñu bëri te loolu temps boo ngi ca doon def mën nañoo dem jàngi salaatul fatihi wala ñu dem jàngi alquran wala ñu dem defi istixfaar tudd yàlla nga xam ne ñëpp ko bokk waaye xawaatim yeek ja jadwal yeeg asma yeek tur yooyu ñi jël rafetal réyal ko rawatina borom siin su tooy yi nga nekk fana yaa jag nangam yooye yëpp li muy rëy rëy rëy rëy boo ko fekkee ci téere doo ca mën a jëriñu seexu tiyaan ne ñaar rek ci mën a jëriñu farajulun moy góor maam xalifaay wax safira bu duufu bil wilaya wilaya boo ko xasee xam yaay tënke mais dara du la tënk di foo fekk njariñ man koo jariñoo boo xasee am wilaya lool laal yàlla fekk la ca lool laal moo xam da nga ko jëlee ci nit moo xam da ngaa dajeeg moom wala dang nga ko jëlee ci téere wilaya boo ko xasee am lool laal yàlla fekk la ca kooka nag la maam xalifa ne a farajulun safira mooy ki duufu bil wilaya wan naa la am na maa naa la la mu am min al inaaya mu am inaayatul ilahiya kooku moom jadwal yeeg xawaatim yeeg asma yeeg asraar yeeg lum ca fekk bagaasam la mën na koo jëriñoo muy kenn aw kal lasi wala ki nga xam ne jaala def na akthara zamani la gën a bëri ci jamonoom mu def ko fi zikril ci tudd li laay ñal yàlla taala mu kame wa sakana mu dal ala tawajjuhu ci jublu la woo ñeel yàlla mu jublu yàlla ci sellal dëggu dëggug jubluwaay fi salawaat julli ala nabi ci yonent bi Moustapha kuntaana bi laa iltifaat ki luul gestu dëggmal julli ci yonent bi rek toujours mu def ko nag li xardin ngir ak xemem goo xam ne jubluwu ca lu xayri xayri ridal ilaahi lu dul gërëm ak yàlla bul ci jublu maa bëgg fatu bul ci jublu maa bëgg wërsëg bul ca bëgg bul ca jublu maa bëgg kaaraange bul ci jublu maa bëgg a siiw su boobaa loola nga cay xam te mën nga ko caa ñàkk xam tamit nga perte ñaar yëpp ñu ci bëri ci jaam yi seexu tigaan nee na abidul agrad lañ mooy jaam boo xam ne day jaamu ay ximem téef rek nas lu ponkalam kurus ñu jox law tur nga dagg ak xaatim dugal ci roon sa yaada ba dégg naa boo ko defee da nga am xaalis mbaa da nga xam ak hubbeeku mbaa da nga siiw mbaa da nga am mbooloo loola ngay jaamu yàlla balaak loola fa man kaana yarju liqaa rabbihi fali yaamal amalan wala yushrik bi ibadati rabbi ahada ibadati rabbi ahada nag lu jafe la mooy jaamu yàlla sax doo ki jublu bëgg aljana doo ko def sax ngir ragal safara yàlla xeyoo ñi war koo jaamu rek maa ngi koy jaamu bu ma dugaloon aljana ma ne ko yaa baax su ma dugaloon safara ma ne ko merci ba tey loolu nag lu jafe la waaye fee yaa ngay jaamu yàlla am loo cay xemeem rek yaa ngi ci israak te même boo ko yëgul moo tax mu ne nga def ko rek maanaam xayri riddal ilaahi lu dul ngërmande yàlla kese nga jublu ko ca yàlla mi nga xam ne lay saloo dët di ko ñeel tanaa yi ak daytal min dooni ci lu duhut loola su boobaa nag ku xam yàlla lu mu xamati nga xam ca fexeel ba xam yàlla rek waaye mënoo hut yàlla ak leneen hutal yàlla kese boo xamee yàlla lu yàlla xamati nga xam ca te yàlla am na lépp moo tax suñ mag ñi lu ñu xam gannaaw yàlla xam yàlla leen ko may hutuñu woon dara du mbooloo du wërsëg du siiw du daraja yàlla lañ doon wut bañ xamee yàlla lu yàlla xam sedd na leen ca mu ngook mu daawi man muy aji taqoo fii ci moom alal min waali ci yoon wi nga dappetoog moom tabaarakallaahu julli ci yonent bi di ko bëril tabaarakallaahu tudd yàlla di ko bëril jubluhoo ci lu dul yàlla te ànd ak loolu saa na ñoŋee na li saanahu làmmeñam xanil aqwaali ci wax yi wax yoo xam ne xayra lati lu dul yi nga xam ne dar di day gërëm loo lépp wax bu dul gërëm yoon la yàlla nga ñoŋal ci sa làmmeñ bépp wax joo xam ne dafay bijj sànjam yàlla nga bako ko comme nan ke zikril xiibati ni ki tudd ak jëw bul jëw te borom xam-xam yu bari li leen yàq tey mooy jëw néew na ci kuy toog doo jëw nit mën naa mukki ci njaalo mukki ci lekk xal li jàmbur mucc ci na maanaam yu bari waaye mucc ci jëw moo jafe ci ji jamono te jëw feek mi ngi nekk sa jikko mënoo yegg ca ciri ya gaaya gaay yàlla ya wakkan na mii ma ak rambaaj wa kulli riba ak bépp sikk te jënni bi nga teet alkasi ba fen maam xalifaay wax wa suxriyata ak reetaanu xol saayiral aqwaali mbooleem wax yi na ko teet siwal mardiya du luy gërëm loo yàlla kal kibri ni ki rëy di jàngoroy xol nga teet ko wal xasadeg añaan aw ka xulmi ni tooñ nit ñi wa buux di shar'i ak mer mu moo xam ne sharia lalu ko nga ba ko mer ngir sa bakkan bul mer ngir liñ gotti sa daraja booy mer na fekk yàlla tax ngay mer ñi xëtt sariya ak la ca aju yaazal fahmi he yow borom ak dégg gi bàyyil xel ci loola lii lu jafe la nag feek mënoo ko yi gaa yi def ci seen téere yi ak asmaaya ak ya ca aju doo ca mën a jëriñu mukk fa sa fa saw moo tax mu ne fa saw fa amaan na kii yu diriku mu jot asraaral xawaasi sekkare gaa yu wa maa siwa haasa kudul kii nag fama lawoo de di ko ñaal xalaasu ak mucc feek manool yii teet yu bon yii fexe ba taqoog yu baax yii aa sekkare ya gaa yi def lu mu am am njariñ yow munoo caa jariñu baax na waaye baaxul pour yow wa innama laayiqu ndaal la gën a yell mooy li yell bi la fii ci nga xam ne siwaahu ku dul moom mooy melut nii la gën ci moom daal dugut waliyu te maanaam man man manta maîtriser boppam ba mucc ci rëy ak xañaan ak tooñ ak merke lu dul yàlla ak jëw ak rambaaj ak yeneen ak yeneen kooku daal li gën ci moom bu bëggee mucc tartibu wirday ni mooy maanaam toftale ñaari wirdo mooy dappetoo ñaari wirdo rek moo tax mu tafal ci dawaa man ci dappetu ilaa ngir yàlla na toftale ñaari wirdo yi buum ko ba mukk fek mu ngi dund mina salaati ci julli daayi man fa wala nabi salla yàlla na doole xew laa wax ci moom muti ruta bi yàlla muy joxe martaba yi yan wirdo maam xalifa mu ne na def wirdo bi laylin bi bi layli ca guddeem nga wa bi nahaari ak ci bëccëg wa salli julil fii maa ci ñaari wirdo xalil muxtaari ca kuñ tànn ka yonantu bi yow daal jëlal dog boo xam ne bëccëg bu jot nga def ko muy suba bu jot nga def ko ak dog boo xam ne guddi gu jot nga def ko loolu daal boo ko defee man ngaa mukki ci musiba yu bëri te fa gaaya yegg mën nga faa yegg te nga bàyyi jadwal yeeg xawaatim yeeg yenn asraar yeeg yenn asma yeeg yooyu yëpp boo ko jëlee ngaa mel ni kuy bëgg a toggal sa bopp ku bëgg a toggal sa bopp te xamoon dugg wala xamoon dugg yi ñu war a mën a composé ba togg gi ñu mën koo lekk doo ko mën a jëriñoo lii nag muy salaatu ala nabi ma salaatul fatiha togg la gu pare yow da ngay ñëw rek jariñoo ko waaye nag nga takkoo ko xam sa mi ina juróomi téeméeri yoon nga jàng ko saatu fatihi ci guddi gi juróomi téeméer yoon ci suba gi su ma tudraj topp taxañaleef fii ci moom siyaadatu xamsiina dolleeg juróom fukk fa huwa moom abhaju moo gën a taaru fii kulli usbuan ci semaine bu ne bi haasal iddati ci bi la lim xatta ba mujj wirdu wirdo wa alfa marra di di maanaam junney yoon fii kulli wirdin ci wirdo wu ne su ma daayu man topp nga taqoo alaa wirdin ci ñaari wirdo yi haakasa naka nii soo ko defee war wërsëgalil la amala nga jot sa mbibét maam Khalifa soo bëggee fa gaaya yegg comme yegg goo fa duxuloo wulliyu duxuloo borom xinaayatul ilahiya te nekk koo xam ne tamit mënoo mucc ci tilim tilim yi tilimal nit ki ci jamonoom te ñu ci mën a mucc ñu néew lañ jëw ak rambaaj ak saagaak xasteek parparloog lekkax li jàmbur yeeg nuur ci li yàlla tereeg mu nekkoon kon booy xeboo baxi asma yaag asraar yaag jadwal yaag yooyu yëpp da nga dem nuur bët bu set nga julli ci yonentu bi juróom fukki yoon salaatul fatiha bu guddee bala ngaa tëdd def juróomi téeméeri salaatul fatiha su bëgg juróomi téeméeri salaatul fatiha léegi semaine bu nekk nga dolli juróom fukk semaine bu nekk nga dolli juróom fukk ca wirdo suba wa semaine dolli waat juróom fukk ca wirdo ngoon wa kon boo ko defee semaine bi juróomi téeméer deuxième semaine bi juróomi téeméer ak juróom fukk lay doon suba juróomi téeméer ak juróom fukk ngoon deuxième semaine bi juróom benn téeméer suba juróom benn téeméer ngoon troisième semaine bi juróom benn téeméer ak juróom fukk suba juróom benn juróom fukk ngoon quatrième semaine bi juróom ñaari téeméer suba juróom ñaari téeméer ngoon noonu ngay yokkee semaine bu ne juróom fukk ba nga xegg ci limab junne boo xeggee ci limab junne nag xemale ko foofa bu ca yokkati dara bu ca ti dara junneeb salaatul fatiha suba junneeb salaatul fatiha ngoon nga takkoo ko boole koog junneeb yaa latiif jublu ca xettaliku ci jafe-jafe yi ak gàllankoor yi yooya boo ko defee fuy nitu yàlla di hegg da fa hegg da nga mukki ci tolof tolof yi mukki ci musiba yi mukki ci balaa yi mukki ci mbooleem gàllankoor te dana defar sa biir defar sa biti moo tax mu ne wala tasit bul dolleeti bihi ci moom dog boobu di junne ba wala tasqut bu ca wàññi bihi ci moom dara waqsit jublul bi zaaka ci loolu tamit sihata tawajjuhi wéral ak jublu ci yàlla li waji yi ngir jëmam ja karim gi tedd ja laa xayri bu ci jub lu dul yàlla bul bëgg fattu bul bëgg sax kaaraange bul bëgg sax nang fan bul bëgg jàmm bul bëgg sax sutura def ko rek li waji laayil karim yàlla xam na loola lépp te boo ko xamee moom yàlla xamaale loola xala dawaame ci dappetoo soo ko defee tu fa fegaleef la kulla dayri bépp loraange wasi dollil bi xawli yaa latifu alfan junne bi li ci guddi wan nahaaree bëccëg bi wan nil ta yàlla nga xam sulfa ak jege su mastaxi topp yàlla nga na nga xettaliku min baadi sa gannaaw lii billaay ci yàlla min dararil faqri ci loraangeeg ñàkk wa kulli daay ak bépp jàngoro wal taskuri del tudd si karal wir day ne ñaari wir day jamono bi doo amee ci dapetoo boo ko defee yu farijan fëraleef lef la maa la nga xam ne anta yow fii yaa ngi ci wasalaam wax ja mat na sëkk doy mat na wax ja mat na dénkaane ba mat na xalifa tëj na ko su ma salaatu doole xew abadan ala muhammadin wa man ak képp koo xam ne iqtidaa roy na bihi ci moom wa sahbi wal azwaaji ak soxna ya wal bañ naag doom ya waa ali ma xuri ñu siiw ña mu xajji lii na mooy ñu pell ña waaye mu xajji lii na mooy ñu ndóobu ña mooy boole pellak ak ndóobu la ñu xàmmee xeetu yonantu bi ëllëg mooy pell ga mooy jëye weex tal ga mooy tànk ya yi mu doon jàppee di ko ak loxo ya tamit weex tal mu mel ni fas woo xam ne dafa boole pell ak ndóobu mu ne loolu mooy xeetu yonantu bi kon nag wasiyatu bi bo ama am solo la mooy wasiyatun fii ixlaasil ibada te ixlaasul ibada lu jafe la moo ñu të moo të ci ji jamono mën naa wax ne toll nañ jamono joo xam ne ndaw yu bëri la ñuy def ci ay awraat moo xëpp la doon bàyyee def ak maam ya waaye la ca bàyyee ak maam ya yëgoon munuñ ko caa yëg ci ji jamono bëri na ndaw yoo xam ne li julli guddi moo xëpp la doon paaye daan julli maam bàyyee ak maam ya waaye cër ba gaaya amoon mënoo fexe ba am ko mooy kon jaamu yàlla gu tuuti ànd ak sellal moo gën jaamu yàlla gu bëree baree bëri te dara nekkul ta sellal zikrul hadar rek la waaye laa zikrul madat son nag zikrul madat fa la mbir ma ne waaye rek door naa juróomi junne salaatu fatiha ci guddi gi waaye yëgoo dara def naa laa ilaaha illallaah julli naa téeméer rakka dara tey nga gën a gël a góose yooyu yëpp sellal nekkut fa limba rek fa ne te limba bu fa ne yàlla xamul ci soxla baneen dénkaane bi Seexu Tijaan na ko def jubale ko ci fuqahaawu faas yi kitaabatun oxra li baadil fuqahaa bi faas min ahbaabihi wa nassuhaa lii ab leetar la beneen bu jëm ci borom xam-xami faas ci ak ay soppeem ya fa ne maam xalifa min baadi bismillahi gannaaw tudd yàlla wasalaateg julli ala rasulillahi til ayaati kay borom kawteef yi seexay wax na min afqari naasi lettre baa ngi bàyyi ko ci ki gën a ñàkk ki gën a xaajowoo ilaa mawlaaw jëm ci boromam zil maj di boromam bay borom ak tedd nga wal xinaa di borom ak koom taala kawe na laahu yàlla ku ko bind ahmad la tudd huwa moom ibnu muhammad at tijaan dañ daan def taxari tax tasta mën nañu waxtu ne tasxiif dañoo fonkoon yonantu ba duñ jaar ca turam wa ngir bañ buñ ko tuddee nit duñ jaar ca turam wa fokk ñu jàngal ko xaraf ya ndax dañuy bañ nga jaar ci tur wa saaga ko wala nga xas ko mbaa nga ñaawlu ko doxee fa yàqu moo tax buñ ne Muhammad ñu ne Mahamad moo tax ñuy tuddee bàyyi Seexu Tijaan Mahamad mais pourtant Muhammad la tudd waaye seen ñooñ jamono ñoo fonkoon yonent bi ba buñ ko tuddee nit dañuy jël masque ya euh, ëlbati ko ne Mahamad yaa nga gis ki ko jàngal alquran xamoo Tijaan yi xamoo amoo Muhammad la Muhammad xamoo xamoo moomu Muhammad la rek ñu dagg del ga ne xamu tijaan yi ak xam ma da nga koy gis tamit ñu dagg dala ca turwa loolu moo tolloog ñun olof yi li ñuy wax léegi kuñ tuddee maxtaar ñu ne njaga ndax loo wax njaga du la wàññi dara waaye loo wax maxtaar boo tun mu yóbbu la safara yooyu kon moo koy yóbboo noonu noonu la noonu lañ meloon ñoom ahmad wa huwa ibnu mahamad attijaani waqaanaa yàlla na fegal ñu xërëja xat-xat allahu yàlla bihi ci darajaay seexu tijaan yàlla nañu yàlla fegal boolem xeeti xat-xat yi seexay wax mu ne leetar bi maa ko bind ilaa bu xibbi naa jëmee ko ci suñ soppe bi fulaan ibnu fulaan diw doomi diw waxu turam aska salaamillaahi gën cey sell julli yàlla yoo xam ne misla manzumil jumaani dafa mel luñ nose ji tëmb bu wurus nu nuyoo rafet na ba mel ni tëmb bu wurus man seexu tijaan maa ko jëmale ci fuqaawu faas yi ak sama soppe ya fa nekk aleykum yàlla na nekk ci yéen wa rahmatullah yërmande yàlla ali bu kawe bi wa barakaatu wa barkeem ala tasalsuli ci sàllawle nay sottee ko rek di jàll sàllaw li jëm si yéen wa baxdu fa lëfii la nga xam ne saalta laaj nga anu ci moom muy réya chazaliya muy tabarakallahu jadwalu imaamu chazali ak daaira ihaata bu imaamu chazali nga may laaj ndax mën nga koo liggéey pour jëriñu ci daayira yooya yëpp falaa takkun hu bu ko nekk mukk bu ko hut bu ko jege inna tamassuka naka ngëp bi ma fi zal kitaab li nekk ci rëy imaamu Saasili muy rëy téeréem booba nga xam ne ci la daayira ihaata nekk ci ay xawaatim ak ay jadaawal jadaawil yu bari nekk maa ngi lay wax ne bu ca bu ca jël dara baxal lépp fa ina tamasuka naka ngëp bi ma fi zal kitaab naka li nekk ci téere bii muy rëy Saasili min harfin moo xam ci ay xaraf la aw min jadwalin wala ci ay jadwal loo ca jëriñoo dafa mel ni fa kasaraab fa mel ni ki njol njonox ku seen njonoox nag ba jàpp ne sa mar dagg na noo ko gën a jegee sa yakaar gën a tas walay sa fi jamia de di nekk ca jëfandikoo la ca nekk lépp ila taab sonn dong lay jural boromam moo sonal tey nit ñu bëri jël tur wii di ko yëngal maa ngi ko jëlee ci nangam dëngala yëngala yëngal ba ci kanam xam ñu ne wéex a gën a kii nga ko ba ko jëlaat wale demaat ba ci kanam jël yële baxale yooyu yëpp dem nuur ci salaatul fatiha ak yàlla tif ak jàng alquran ak tudd yàlla yooya ñëpp a ko bokk te ñëpp a ci mën a jariñu te benn dansé amu ca waaye yeneen tur yi bari sonn dong nga cay jëlee diw moom la doon liggéey ba def nangam nangam ak nangam waaye nga xam li doon doon liggéey nga faa nekkoon guddi ba muy liggéey da ngaa xam li mu doon jëfandikoo doo di waxi caaxaan rek kon Seexu Tijaan nee na tur wu ne yëngal naa ko waaye sama ma jëg dund sama maam dafa maa tere tur yëpp ne ma baaxal lépp te dem sax ci salaatul fatiha ak latif man na lépp wa xam ne yu addi day jooxee rek li na atabi jëmee ci alkande wallahi la ca nekk yëpp coono rek la jural borom xemem teef ya ca nekk timit yëpp dafa lay jooxe jëmee la ci alkande rek waxlam xamal bi bi bi bi anna kulla zi asraar yi naka nekk na ci mbooleem secret yi azimatun tasrif yi ya aji màgg ci wëlbatikoo miqdaare kem lakinnaha ngay wax ne waxlam bi anna kul bi anna kulla zil asraar yi naka mbooleem secret yi azimatu tasrifi lu màgg la ci soppandi wa miqdaare kem waaye nag laa ki naa li fi nekk la muy màgg-màgg mashrutatun luñ sartaala ala wuquufi am rey dañ ci taxaw ci ñaari mbir laa tunaalu def xamee ko min dooni uquufi ci lu dugul sax ci ñaari mbir ya sekkarey gaa yi yàlla yi li muy rëy rëy ku la ko mën a jox ak foo ko mën a jëlee ak foo mën a dajeeg moom mënoo ci a jëriñu te ñaari yëf nekkut ci yow ñaari yëf yi bu newut ci yow ala kulli haal lu tur rëy rëy ak lu tur baax baax ak lu tur màgg màgg màgg na waaye yow mënu laa màggal baax na mais mënu laa baaxal tur wa tabaarakalaahu jekk na waaye mënu laa jekkal tur wa mat na waaye mënu laa matal lu dul ñaari yëf njëkk ci yow la maam xalifa wax awaluha ba ca njëkk alfathu mooy am ak hubbee bi kulli maarifa ci bépp ak xam nga kam tur wi lool xam istixraaj ba xam bu dammee xam istimaal ba xam waxtu ya xam jamono ja xam adat ba su boobaa fekk tamit saahibuha boromam muttasifu dafa aji meloo bi haadihi sifa boole maanaam borom turwa meloo tamit melokaan wi mooy xam gu wér sëkk te waaja tamit bi mu xamee ni mu xam noonu la mel mooy mooy bi ci njëkk mooy xam danga nga xam adat ba xam istixraaj ba xam jamono dañ koy war a yëngal a xam tur wi lan la wa amruha mbiram ma saani bu ñaareel ba bay gannaaw boobu gannaaw xam la daa mën a abara ki nga xam ne passé woon nañ mooy nga xam ne arwaahu asraarin rooxi secret yi ba daj feeñ na muttahar di duñ labal eh, maanaam secret yi ay rooxu lañ yu laab ni rooxu sellee baxee koo fu sell noonu la tur yi tamit sellee baxee koo fu sell nga xam ne tamit tur yooyu di arwaahu asraar xaa imatu tasrif yi dafa am xaa imaab soppandiku lil asaari ki sekkar yi daa imatun di agi dappeto ala tamaadi ci continuer al jaari tur yi moom ci fu sell lañ bàyyeekoo lu sell lañ tur yi boo leen sikkaree ña ngay dox di dem boo leen sikkaru timi ña ngay dem ñoom taxawuñ ba leen yàlla wàccee ba léegi dañoo continuer ci at tamaadi alal jari foo leen fekk tur ya dañuy daw fa bi nekk nag comme ñoom dañuy daw duguñ koy taxaw noo noo ca noo mën a fexee bañ dawalaaleel la fa mbir ma ne duhul luy daw lu ne ku ca dugu mu yóbbu la de bari na luy daw loo xam ne ku ca dugg sànku kon nag moo tax sànku ki tur yi bëri ñi ci damm kenn xamut nuñ toll ñi ci torox kenn xamut nuñ toll ndax moom daa'imatun ala tamaadi fil jari dafa dappetoo daw yow nag su fekkee xamoo luy daw lu ne nga ne naa daw naa daw dugg ca te xamoo fi mu jëm da ngay xam problème kon xaayi fokk xaayimatu tasrif bi am nga xam xaayima bi nga xam ne mooy soppandiku gi ñoom secret ya ak daw gi muy daw fu mu baaxee koo daw gi mu daw fu mu jëm ba ma cay dugg fu mu toll loolu boo ko xam boo ko jëfandikoo rek toro moo tax mu ne wax la xamal bi anna hadi tariqa naka yoon wi laa ya'lamu du ko xam si waa waliin waliyu rek moo ko xamula bu mat waliyu yàlla kese moo nekk borom mag fathu ci maarifa bu wér waliyu yàlla pire mooy koo xam ne moo xam xaaimatu tasrif bi xaaima bi nga xam la ñu soppandikoo turi ci secret yi ñooña tamit ñoo xam tabarakallahu tur weeg la muy dawalak na muy dawee ak tamit boo ca duggee fu mu la mën a yóbbu mm-hmm. léegi nga nga nga bàyyi ci xel a ah, su ko defee kon raajeex dellul nag demal nga liiri moo tax mu ne waxayru saa kudul kooka min tasarufi ci soppandiku ci tur yi yaxtaaju day xaajoon taslimi nga jébbalu wa tawaqu fi ak taxaw boo ko boo xeboor jébbalul ko te taxaw waaye boo ko jëfandikoo yee te ñaari fatu amul maanaam bi xaqiqatil maarifa fatu amul tabaarakallaahu ci xam qaimatu tasrif bi boo ko laalee yàqu defal taslim ak tawaquf lii ma wax la boo ci bëggee xam lu gën a wér raajeex demal nga liir dellul kalaama cheikhina waxi suñ sëriñ tajit da nga fekk kalaama kaamilil irfaani muy waxi koo xam ne ku mat la ci xam kon nag loolu bu amut moo tax tur yu bëri di laggal gaa yu bëri tur yu bëri nit jox la ko nga joxe ci xaalis bu bëri te boo ko yëngalee dara du yëngu moo ci bari dem leen si fatiha noppalu dem leen ci laa ilaha illallah noppalu dem leen taqoog alquran noppalu dem leen fexe laabal xol yi ci mbooleem xayriyaat yi fexe ba laabal làmmeñ yi ci jëw ak rambaaj ak fen ak yu mel noona fexe ba laabal awra yi ci njaalo fexe ba ñoŋeel biir yi ci lekk halal ju xaraam yooya mooy li hëpp njariñ waaye yooya yëpp boo cay nuur ku la mën a jox tur ak noo ko mën a yëngalee tamit dara du yëngu da nga cay jëlee ak yow mi yow sa bopp yaay mujj yëngu rek torox Seexu Tijaan nag ndénkaane bi mi ngi ko tëjee muxbitaatul amal mooy yi sippi jëf yi dafa cee lim lu mat ñaar fukki yëf yoo xam ne ku takkoog moom sa jëf yi nga amoon dafay mabbu nga commencé à zéro xam na ci yoo xam ne jëmmu jëf ji nga nekk rek lay mabbu xam na ci yoo xam ne day mabbaale ya ko jiitu woon moo tax mu ne waqaala aydan muxbitaatul amali yi sippi jëf aas naa yàlla na musal ñum naa ci ilaaw naa suñu yàlla jaxal yi bu kawe kër yi datin murtad moo ci jiitu nit ki bu xasee murtad li ma xamoon ci lu baax lépp yàqu na faqad habita amaluhu wa huwa fil axirati min al xaasirina murtad génn ci diina ji yàqule nga jeex na sëy yi nga takkoon yàqu na ah mooy sa soxna yi mabbu na sëy ba yàqu na waxuma ñi nga takkaloon ñeneen nag jamono avant ngay murtad waaye yooye mabbu na ci yool ba nga ci xamoon mabbu na xaj waaye sëy ya moom mabbut xaj màkka ya mabbu na yool ba nga ci xamoon njàpp ya julli ya xor weeru koor ya joxe asaka ya jàng alquran ya jokk bokk ya boo xasee murtad daal commencé nga à zéro sa batterie bi vidd na wa xas fi muxsanaatin ak xas ñu sangewuña jigéen ñoo xam ne dañoo jub maandu ragal yàlla comme ni sayyidatuna Aïcha ak ñu mel ni ñoom donte ku mel ni ñoom sax jafe na nga taxaw di leen xas moo xam ci internet yi di ko publier di wax lu bon ci jigéen te loo ko dara da ngaa bon rek mbaa nga sàkk ko mu bañ nga nga jël ko di ko de wax lu bon ak loola dafay mabbu jëf taaxiiru asrin yéex a julli tàkkusaan yaati di dikk ba li xuróot ba soga tàkkusaan a ngi nii xamoo benn nganta lu dul ngantam politique wala ngantal réunion yi kenn xamut nga xam ne ci réeroo rek lay mujj ba jant bi so ngay door julli tàkkusaan muxtaar ma dem daroor yu ba dem wala nga nekk ci say tool mbaa nga nekk ci sa commerce wala nga nekk ci ay jël ay audience yu kenn xamut yooyo yëpp nga nekk ca ba tàkkusaan passé nga julli ko kooka maanaam sa jëf ju baax ja màbbu na ndax eh, yonentu bee waxoon ne man faatahu salaatul asri fa ka annama wutira ahluhu wa maaluhu képp koo xam ne yéex naa julli tàkkusaan ba waxtu wa passé fa mel ni dañ ko kuñ fekk këram buum ko ak xalalam Seexu Tijaan ne lool li muy firi mooy jëfam ju baax ja màbbu na su ma su su mas irs te su ma su mas tirsaalu topp nuur fii akalil xaraam yi nuur ci lekk xalali xaraam yi di di di di trian di jëw di dóori di di di dóori marto noo mën a tappale nit ki ba nax ko lekk xalalam rek tabaarakallahu yaa nga ca su boobaa sa jëf ju baax ji màbbu na ndax li lay alimenté ba nga am kattan ci jaamu yàlla comme moo daganut jaamu yàlla ya ngay def ca loola tamit du dagan jaamu yàlla yi tamit yàlla du ko nangu wa manul ujrati ak tere ak payoor maanaam liggéeyal nit ki xamel ko xaq war koo fay mu ñaq ba topp la di la toppaat ba ñaqaat kooku tamit tabaarakallaahu dafay mabbu jëf moo tax yonent bi daan wax ne atul ajira ajrahu qabla an yajufa araqahu fa xaasir mooy tandikul sal maraama bi càkkutéef mooy xaq nit baaxut koo liggéeyloo ne ko bu paree ma fay bu paree ñàkk na fayal la 15 lay fay bu la 15 jotee ñàkk na weer wu dee laay fay bu weer wi dee ñàkk na yi yëpp jël xaqi nit ñi seen ñaq yi di ko serloo bala nga de yàlla toroxal la wax dara mooy tandiku minal ut ci ci mooy xéem sa bopp loo fi defoon yaa ko fi dàq maa fi dàq jàng maa fi gën a fasaa maa fi dàq waaraate maa fi dàq liggéey maa fi dàq nangam yooyu yëpp lay mabbu jëf wa ama ridatu daal murtad moom ma njëkkoon laa wax nag na onze ñu ngi muslim billaay ci yàlla fasi yi mooy murtad kasiratun lu bëri la murtad façon murtad dafa bëri xawli am na yoo xam ne ko jug wax la waaw waaw am na wax yoo xam ne koo wax génn nga ci diina ji te kon dana nekk aw fi'li mbaa ko jug jëf ama lati ndaal ya nga xam ne ya dóoru dana wëndeelu a yedduur waa dana wëndeel ko xawliya ko ju wax ya kooku wala nga ne yedduur dana wëndeel bi ci moom xawliya ya mooy ka nisbatil xuddoosi ni ki askane yàlla sosu ne yàlla ku sosu la jërul sonn génn nga ci diina ji wa shariik ak yàlla aji bokkaale la am na ko bokk ak moom nguuram gi mbaa sañ-sañam ba ba ngay taxaw naan bu neexee yàlla diw danaa def nangam kon fa mel ni machiatul ilahiya booba fa cee xam ku ko bokkak ak moom balaa balaa mbir mee sotti fay neex yàlla neex kooka kooka ku ko def daga murtad ga fii jan bi rabbi waahidin ci wàllu borom bi bu wéet ba maliki nga xam ne mooy buur kon nag moo tax benn waaye mos naa toog ci yonent bi ne ko bu neexee yàlla ak yow dinaa def nanga mu ne ko qul macha allahu faqat ajaaltani lillahi niddan dag maa bëgg a def may dendandoorab yàlla booy def say bokkaale bu génnee ma ci ba ma seet wecc te loolu léegi tey moo gën a moo gën a bëri bu neexee yàlla ak diw léeg-léeg sa nga dégg ku xiriri di ci ab sëriñam ba ne bu yàlla rek tudd sëriñ ba génnee ca yàlla carrément loolu lu doy doy waar la wala nga ne danañu diw may jàllal bi ku génnee ca yàlla haa jël ak may lu toll ni may yàlla yi nga jël ko wéer ko nit génn murtan nga de nisbati fi'lin est-ce que askane jëf li si waaw ku dul yàlla naka noonu tamit jëf joo fi mën a askane ku dul yàlla génn nga ci diina ji mbooleem lu nekk ci déndab asamaan bi ci jëf li nga xam ak li nga xamut li nga gis ak li nga gisul kenn ko jëf mu yàlla bu baaxee yàlla la bu safaanee baax ba tamit yàlla la waaye jël jëf yi di ko askanee kudul yàlla kooku dafay génne nit ci diina ji mu ko def moo tax mu ne kal qadriya ni ko ahlu qadriya wa baadil jëhal ak ñenn ñu réer ñi qadriya ñoom dañoo wax ne jëf ji yàlla jëfu ko maanaam daal yàlla dogalu ko ñoom lañ dem dañuy dàq dañuy dàqul qadru dañuy dàq dogal wane ne daal mbir mi tey fekkee ne yow am nga doom nii loo taawloo nga ne góor ñu ne ah bam ba ko taawloo gut yàlla xamut ko woon xam nga loolu réer la yàlla moom bam mu la bindagul sax xam na li ne ci yow yëpp ak li nar a soqeekoo ci yow lépp waaye di dabaatal xam-xam bu bees ci yàlla kooku réer bu nu koo paase kooku mooy qadriya ñoom la ma tuddee majuusu haadihil umma ñooy euh, jaamukatu safaraaw xeet wi le ñooy wax ne mbir mi dafa nekk di li sosu xam sos xam ga dafa beesu sosu waaye nekkutoon lu jiitu woon ca asal xam nga ne loolu loolu loolu réer mënu koo passé moom daal mu ne mbir mi fam xewee rek fa la ko yàlla door a xamee moom nit ñëpp a ca yem loo xam nga ne doom lu ma xam na ne góor ba mu nekkee góor nga xam ko yaayam xam ko sa goro yi xam ko booba la ko yàlla xam waaye yàlla moom xamutoon ne da nga am doom sakkaa sax ba muy nekk di góor xam nga ne ñooña sànko nañ ñooy majuusu haadihil umma ñooñu werante xamul ci ne ay xéeféer lañ borom xam-xam yëpp dañoo wax ne na leen ñëpp baax waaye yàlla dogal na ñoom seen ci seen sët fi nag waaye mas ga sosoon loola fër nañ njëkk imaamu shafii di feeñ ci la ñuy jeex ñoom wa qad inqaradu qabla zuhuri shafii waaye pas-pas bii ba léegi am nañu ko am ñu nag yàlla na yàlla rëbbëf leen moo tax lu mat juróom-ñaar fukki yonantu rëbb nañ kuréel bi le moo tax yonantu baa ngay wax ne képp ku bokk ci ahlul kadriya bu feebaree bu leen ko seeti bu dee bu leen fekkee tàdd ga fu ñu koy jullee ndax kooka gëmul yàlla kon gëm yàlla piir mooy nga gëm ko boole ko dëggal ko ne moo bind jaam yi moo bind jëfi jaam yi xam na leen njëkk mu leen di bind xam na leen bam mu leen bindee kam na leen après bi mu leen bindee xamam gi moo jiitu lépp ci lépp lu jëx la nag ñooy mu'tasiliya mu'tasilina yi ñoom dañoo sànku ñoom tamit ñoom ne yàllaa bind jaam bi mais jaam bee bind ñooñu dañoo sànku yàllaa bind jaam bi de mais gannaaw bi yàlla bindee jaam rek ba na koog boppam bu jaam bi doxee moo doxal boppam bu toogee moo toogal boppam bu nelawee moo nelawal boppam bu lekkee moo lekkal boppam bu waxee moo waxal boppam bu toppee yàlla moo toppal yàlla boppam bu moye yàlla moo moyal yàlla boppam yoonu yàlla nekkatul ci ñoo na sànku nañ weddi nañ ay alquran yu bëri yéen ñu weddi bokk na ca wallahu xalaqakum wa ma taamaluuna yàlla ne maa leen bind bind li ngeen jëf yow ngay weddi loola kon kay loolu jeex na ñu sànku nañ kon nag ñu mu'tasilina yi ñu sànku lañ ñoom tamit tabaarakallaahu euh, ñu jara daw lañ ñetteeri kuréel ba gën a sànku nag mooy tabaarakallaahu ñu ngi tuddee ma'nawiya ma'nawiya mbooloo lañ mu ñuy askane ci maaniyil kazaab ñi wax ne ana faila charri azalma waqad nataqa al quran bi takdibihim ñoom dañ ne yàlla bind lu baax waaye lu bon yàlla bindut ko waaw waaw lépp luy lu bon rek yàlla bindu ko moo xam sàcc moo xam njaalo moo xam fen moo xam nangam loola yàlla bindut ca dara ah kay yàllaa ko bind waaye gërëmut ko yàlla de moo bind kéeféer te kéeféer moo gën a bon yi ñu wax yëpp waaye wala yarda li ibadihil kufra waaye nag kon loolu jar naa xel yow boo ne yàlla bindut lu bon kon fooy dugal aaya ji yàlla wax ne wa jaala xulumaati wa nuura man yàlla maa def lëndëm ak leer leer kay mooy lu baax xulumaat mooy lu bon lu moo tax mu bañ ko ba jama ko jama ko mu ànd salim xulumaat dafa bëri façon fen xulumaat la xulumaatu min min min xulumaat naka noonu jëw rambaaj kas dagg bokk wax lu bon yooyu yëpp oh, ca xulumaat yi la bokk tooñ sax xulumaat la ak xulmu ak xulmu xulumaatun yawmal qiyaama yonentu baa ngi koy wax ko nag yàlla bind lu baax moo bind lu bon ba mu bindee lu baax moo ko bind dogal ko gërëm ko bam mu bindee lu bon moo ko bind dogal ko waaye gërëmu ko ndax wala yarda li ibadihil kufra kon yooyu yëpp jar naa baxi xel kon nag loolu la maam xalifay wax nii moo tax mu ne kon mooy tandikul gaa yooya nga xam ne dañoo génn ci diina ji ñi askanee ak sosu ci yàlla ak ak bokkaale ci yàlla ak ñi askanee jëf ne mën naa xam ci roon suuf te fekk yàlla dogalu ko comme xadriye yi wala ñu réer ñi nga xam ne dañuy wax ne tabaarakallaahu yàllaa bind jaam bi mais bindul jëfam ja wala manawiye ñiy wax ne yàlla mo bind lu baax mais bindul lu bon ñooñu ñëpp sànku nañ waaye tamit ni nga ñoŋeelee sa bopp ci murtad noo nga xam ne murtad day màbbu jëf te murtad wax naa la xawliya am na fi'liya am na bokk na ci lii màbbu jëf tamit nag ka chat mi ni ki saaga wa sabbe ŋàññi wa ka ta wa ka tahaturi ak maanaam rëy ŋaam fi janibil xaqi ci wàllu yàlla a kasa naka noonu taxayiru ak soppi li ismin ci tur min asmaa yi àlli ci turi ko kawe ki aw sifa wala meloom yooyu yëpp day mabbu jëf yàlla mu màgg mi nga taxaw wax wax ju bon saaga yàlla te gaa yaa ngi koy def ci internet bi ŋàññi yàlla taxaw naan waaw yàlla nangam wax wax ju ñaaw askane ko ak manki ci wàllu yàlla wala turu yàlla yu màgg yi nga jàllal bi ko di ko soppi lii lépp tey mi suñ penc mi ñi fi saaga yàllaa ngi fi ñii di saaga yonantu bi ñii di saaga yeneen yonantu yi ñu jël ak ay ak manque di ko di ko askane yàlla ñii di rey ngaam suma ma da jàkkaarloo nag yàlla def nangam ba mel ni ku yàlla sa morom la loolu tey dëgg dëgg bari na suñ penc mi waaye tamit ñi soppi turu yàlla yaa ngi fi yàlla turam yu màgg yi ñi koy soppi duñ jeex dañoo bëgg nit ki buñ ko tuddee abdullahi bu ko tuddee laahi buñ ko tuddee abdul ahad bu ko hooyee ahadu buñ ko tuddee abdul jabbaar bu ko tuddee jabbaar buñ ko tuddee abdul samat bu ko tuddee samat eewal ma eh, samat buñ ko tuddee abdul latif bu ko tuddee bu ko hooyee latif ndax comme li latif mënu ko mënu ko li latif man mënu ko li jabbaar man mënoo ko li ahad man mënoo ko kon nag nañ jël tur yooya di ko jox yàlla xam ne moom dong la jot koo ko nattal mu manqué mbaa mu walillahi l asmaul husna fad'uhu biha kon nag yooyu nañ ci bàyyi xel ak yenn tur yi nga xam ne tabaarakallaahu ñi ngi koy sopp ci tur yonent bi ñi ngi koy sopp ci tur yàlla yi kenn xamut nuñ toll duunaka jàppal moo tax mu ne aw xitaabin wala waxee li jëli li ñeel yàlla xarrafahu boo xam ne jàngal na ko jël yàlla ay turam nga koy defal taxrif yulxiduuna fi asmaa yi jëm doon wax ilhaad ku ko def ci turu yàlla yi da ngay yàqule taxriif ko def ci turu yàlla yi da ngay yàqule tur yi tawqifiya na ko jóg xemale la ndam ñëwee noonu nga koy joxee yàlla waaye doo ca jël lii di ko soppali di ko dagg lii sëriñu tariyaax yi rek borom kurus yi guddi yi léegi-léegi nga gis ci koo xam ne turu yàlla wi lay daggee fale dagg ko fale yokku ca lale dindi ca lale loolu lépp Seexu Tijaan fa koy tere nañ ko bàyyi xel kurus gu gudd te junne per nga tax maanaam nga nga nga jël ko di tudd tur woo xam ne ma naa am sax turu jinne la wuñ booleeg turu yàlla duunaka jàppal madhaba tijaani lii mooy yoonu seexu tijaan wal ashari yi mooy pas-pas imaamu ashari yi fil magdi wal qadri mooy borom daraja sanii ji kawe ja faqri mooy borom puukare ga mafqari mooy borom ak puukare saniil mafqari bay aji yëkkatiku ci puukare wa man yàkk ku nekk istahala di sàkkoo daganal muj ma an luñ dëppoo ale ci moom kaffara weddina fi lazir ci la nga xam nasoo yaxal na xale ci moom lépp loo xam ne masalatul ijmaa la ñëpp a dëppoo ci xaraam ga ñëpp a dëppoo ci mbon ga yow nga ñëw di ko jéem a daganal naan non baax na dara nekkut ci loola koo def génn nga ci diina ji de bokk na ci cigarette sax cigarette borom xam-xam yi ragal yàlla yëpp d'accord ne dafa xaraam yàq xalal la wala tusrifu inna laa laa yuhibbu musrifina innal mubathirina kaanu ixwaana shayatin wa kaana shaytan rabbi kafura cigarette dafay bijj ak wéradi di deme sa santé te wax dëgg yàlla wa kuloo wasrabu rek dugg na ci dugal santé mooy ay bi gën sante tegtale na ko na ko ba waxee woon ah, nasaraani ba naka noonu tamit tabaarakallaahu a ah, li nga ci rey ci ay nit ci saxar sa xet gu bon gim lay jox ak ñuulal sa bëñ yi indi la xet gu bon yi ci xaju yooyu yëpp kon lépp masalatu boo xam ne ijmaa la ku ko weddi bokkatoo ci diine di wa man yushaqiqi rasula min baadi ma tabayyana lahu lhuda wa yattabi gayra sabilil muminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa saat masira moo tax mu ne ka jaahidil maalumi ni ki weddi luñ xam bi darura ci lor mooy loo xam ne ñëpp ko xam mu nekk darura ilmu darura ñëpp ko xam takfiir yi ni ki weddim fil qawlati ci wax masuhuura ba di buñ siiwee misli salaati julli darura ñëpp ko xam nga ne julli warut jaamu yàlla ak jigéen la nangam sofental julli wala njàpp génn nga ci diina ji wa tahaawunog doxa dal bi martabatil awliya martab anbiya kon martaba yonantu yàlla yu màgg yi nga jël wax ju bon di ko askane yonantu yàlla Suleymaan wax ju bon di ko sa askane yonantu yàlla Daawuda wala yonantu yàlla Yusufa ak wala ñu mel ni ñoom ak yonantu yàlla Muhammad ak ñu mel ni ñoom képp ku doxa dal seen daraja ala gotti ko rek génn nga ci diina ji wal am ak malaaka tedd yi xurar ñi nga xam ne tabaarakallaahu dañoo nekk ñu siiw ñu tedd malaaka yi képp ku leen di askane ak manki di wax lu bon jëmee ko ci malaaka yi génn nga ci diina ji waka suduri chat mi ak gongik saaga aw ta haw aw ta wal lisaanin wala rëy làmmeñ aw nisbati wala seen ak askane fal taxdar na nga moytandi ko loola kon képp kuy ŋàññi malaaka yi mbaa ngay ŋàññi wal yàlla yi wala nga nekk kuréy ngaam jëmee ko ci malaaka yi mbaa nga jëmee ko ci yonantu yi mbaa nga jëmee ko ci yàlla sa jëf ja sippeeku na génn nga ci diina ji kaman koo xam ne yaxutu dana sippi lahum ñaal leen xaddara martaba dayob seen daraja ja wa kartikaabil manhiyaati ni ki toggoo yuñ tere yi aa janna bahoo teet na ko yooyu yëpp loo xam ne manhiyaat yi yàlla tere nga koy toggoo sax nuur ci njaalo nuur ci lekk xalli jàmbur nuur ci trian nuur ci fen nuur ci jëw nuur ci xaste ak yu mel noona a ak jéem a gotti martaba bi yàlla jox yonantu yeg malaaka yi loo ca wàññi génn ci diina ji wala bu ayib ak ngay jéem a ayibal mi fii sawaatim seen jëmm ya ñoom yonantu yi yonontu yi yonantu bi dafa ngaana yonantu bi dafa dafa dàngam yonantu bi dafa dàngam déedéet loolu mënta nekk mën nañoo feebar de comme ñun waaye feebar buy manqué seen cër ya wala muy demee seen xel ya man taxam ci ñoom ab yonantu tamit boo ko askanee ak mooy yàlla génn nga ci diina ji ab yonantu manta mooy yàlla ñoom ñëpp maasumuuna lañ yàlla leen sécuriser ba xamul kenn ku ci mën a mooy yàlla ni la naaw ji jaww gi jafe ni la ab yonantu di xalaat mooy waxuma la mu koy fas waxula ma waxuma la mu koy jëf wasibu saa ak yu niroog yii mi maa yu addi luy joxe al irtitaada ak dëddu nit man ak ak tubbi al irtit daadu ak ak tubbi ni mën naa tubbi génn ci diini te fekk yëgut ko bu demee bay dee koy door a xam lii lépp du waxi kenn Cheikhu Tijaan na ko wax maam kalifa way ko mu nekk lu leer yoo xamee dafa tegu ki ci texte alquran tegu ci texte sunna ak waxi borom xam-xam yi kon ayibal seen jëmm ya mooy wala ayibu fi zawatihim d'accord ne ayib nekk na ci jëmmi yonantu ya min al inaadi ngir dëggee wasibu saa ak yu yi mi maa yu addi loo xamee day joxe lirtidaadu ak ak ak murtat wa adamu rida ñàkk gërëm bi jaril qadri ci daw ak dogal yi li yàlla lum dogal gërëm ko waaye dogal yàlla yi ku ko gërëmut génn nga ci diina ji wa sax toog sànji xendal masaay bi fa musiba yi a na nga moytadi tuddi ko musiba mu la mën a dal bu mu tax nga sànji yàlla waaye man de yàlla lu doon def nangam yàlla ji waroon naa taw lu la wax ne yàlla fa am lu ko war loolu kay demal nga waxi ko keneen waaye yàlla dara waru ko dara lu wóor lu def ci coobareem la ko defee yàlla de waroon damaa may xaalis yàlla de warut woon rey sama doom ji yàlla de warutoon tas sama sëy bi nangam ak nangam yooyu yëpp ku ko def da ngay murtat génn ci diina ji yàlla dara waru ko lu ko neex mu def kenn ko defalu dara innama amruhu ida arada shay'an an yaqul la kun fa yakun kon mbolem gëm yi li ci gën a jafe mooy gëm dogal lu gën a bëri ci ñun wallahi bu neexee rek nga d'accord sant sant ak tiitaru waaye bu naqaree mbaa mu tiis rek nga saalik commencé wax wax joo xam ne mën na laa toroxal loolu lépp nañ ko dogalu yàlla yi sax kenn warta wax ne dafa naqari jaam ak borom waruñoo séq mu ko teglu ko naqari man ngaa wax ne dafa tiis nag ndax sa jëmm ji dafa faible ngaa gaaw a jaaxle gaaw a teqaliku sa sago gaaw a am problème sa baaraam buy métti sax mu tiis waaye ne daal dogalab yàlla bu métti bi tey daal si suñ kaw kenn waru koo wax dogalab yàlla du métti jaam so fekkee ak jaamam nga wér na fekkee jaamam nga tamit dëggu na lu borom bi dogal gërëm ko waaye xam nga tey bari na dëkk yi may déglu ñu bari ñoo kan ne ba fa yàlla gëjee rey nit kenn xamul kañ la ba fa yàlla gëjee feebar loo ba fa yàlla gëjee ñàkkaloo lu fa dal nit rek am na kuñ koy jiiñ loolu lépp dafay génne nit ci diine ji a qul lan yusibana illa ma kataba laahu lana huwa mawlana jar na baxi xel kama usiya naka lay li baax ahli irtiyaa ñeel lenn ci borom sikk yi ñuy jël loolu di ko askanee ku dul yàlla dogal yi nga jël ko di askanee kudul dul yàlla ku ko def génn nga ci diina ji yàlla amul lu ko lu mën a dox diggante asamaan ak suuf lu mu dogalul mënta ne benn mu dogal ko gërëm ko mbaa mu dogal ko ñàkk koo gërëm mais mënta ne baax na bon na tiis na métti na xasas sa nii yàlla nga ma jagleel yow maam xalifaay ñaan duunal waraa wali si mindee fi bisal musaa bi ci lii ñi musibaal ku wax loolu génn nga ci diina ji kon dafa bëgg a wax ne taxaw yàlla jël dattu teg ko ci sa kaw li li ñuy askane mu andi benn way benn dafa def lixtibaas kama xosee naka la askan li baax di ëllir irtiyaa bi ñe leen ci borom sikki yi borom sikki yi dafa amoon benn waay yoo xam ne yàlla da koo teg natt bu tiis mu taxaw ne yow yàlla daal waaye yow yaay kan man maay kan lu tax nga may jagleel nattu bi nga xam ne mosoo koo teg kenn man rek nga ko mos a teg xasasta ni jagleel nga ma duunal waraa wali simindeefi bisal musaab ci bële musiba jooju wax wax ju bon la ku ko wax da day génn ci diina ji moo tax mu ne fasa lii asa askana ne ko xulma tooñkat ya ilal adli jëmee ci ku maandu ka mooy yàlla xakim ku xereñaka subhaan tudd na ma sellam woo moom mu dabbiru mooy kuy setantal kari mooy ku tedd ka yooyu yëpp baaxul dafay génn ci diina ji wa baadu zil juhaali lenn ci borom réer ya xendal xadda bi fa mer yaqulu ña ngay wax naan afalu man danaa def law nuudee doonte hooyef na bii camam walaw qaalaha bu ko waxoon sax laahu yàlla aw rasulu kooku ku xamadi la man daal nangam tey faw ma def ko même bu ma ko yàlla tere woon sax danaa ko def même bu ma ko yonantu bi ñaanoon du ko nangu même man lu mën a doon kenn mënu ma ko teree def ku mën a doon bu yeboo tey danaa xar asamaan si xar wala suuf si nangam man tey kenn mënu maa teree def nangam xam nga tey ñenn ñu xamadi ñu ñeeru ñooy wax loola loola lépp ku ko wax da ngay génn ci diina ji sa maanaam sa jëf ju baax gi dafay mabbu donte yonantoo ko wax sama yoon nekku ci donte yàllaa ko wax man sama yoon nekku ci ko def loolu waxi ku xamadi ku réew a koy wax ku yaruhut waaye fal yanzuru na xool waay maam xalifaay wax muuminu ko gëm yàlla maa yequl la muy wax waaye sa wax da nga ko war a peesi seet ko rawatina wax ju jëm ci yàlla kasa naka noonu maa xakkaa loo xam ne tal ahlu kasfi borom kasfi min al umuri ci mbir yi mujibaatil kasfi lii war lap lap ci toroxtaane mooy lap ci suuf lap ci safaraaw yàlla wa mu ne wayu ji naa waral mawta dee bi suy xaatima ci mujj gu ñaaw loolaay lan mooy li mooy daxwal wilaya hoote wilaya koo ki gis ma nga rëyal ak kaala di hoote ay maqaama ña la wër la ko hooteel te lu ci bëri kese àllaaxira dong lay feeñee wilaya ku ko xam doo ko xool sa bopp ku ko xam buñ la ko hooyee tamit da nga koy miim waaye jamono jamono jamono ji ko xee ko xee boo koo dajane ko boo xee ne ko wëliyu yàlla bi rek daanaka ñëpp wëliyu lañ te wëliyu laazamahoo taqoona kasaanaka noonu te sadduru gongeeku li baslil wirdi di gongeeku maye wirdo te yow xamoo ndigal min xayri isnin ci lu duxul ndigal xat ataa dikk na fi la xat di ci li ci ci ci ci lim bokk na ci yéñ lim yi nga xam ne dafay mabbu jëfi nit ki kon nag daawal wilaaya kasaa naka noonu képp ku taqoo loola dafay torox gongee kuy maye wirdo ci lu duxul ndigal xamuloo lijaasa boo ko xamee te ña nga ko xamee sax yeewuñ ko boo ko joxee torox ndax kala ko jox torox na yow mi koy joxe tamit da ngay torox jël li jaasaal koo xam ne loo ci jëm lu propagande farataay njàpp xamu ko farataay julli waxi nopp ferul iji ci alquran xamul dara waaye rek am na bayre nit ña topp ko nga topp ca yow te nit ñi léegi li ma li ma gën a jaaxal parewuñ sax ngir defaru nit ñi sax parewuñ ngir bëgg a baax affaire yi bës rek la nit ñi wut dara jaag coowak ak wax ju kenn xamut waaye topp koo xam ne moo la gën a wér ne yow mi ko topp sax yaa tene yàlla seede na ko bëri na ku topp koo xam ne ki nga yow mi ko topp yaa ko tene ci wàllu yàlla yaa ko tene ci xam yaa ko tene ci njub ak ragal yàlla waaye am na bës boo amul rek nga ne naa ko topp di ko jege bu ëllëgee nangam ak nangam ak nangam dafay torox dem safara yóbbuwàl la fa idaayatul xalqi di la dappetu tamit di lor nit ñi wa kasrati zina bëri njaalo wa kasi bi nag fen ala rasul ci yontu bi si sanaa kay boro ak kawe Seexu Tijaan nee na kuy lor nit ñi koo jëflanteeg lor ko yaa ñii nga leen di lor ci sa sa kartan ñii nga leen di lor ci say signature ñii nga leen di lor ci say pouvoir loola lépp dafay mabbu jëf yóbbu nit ki tamit safara naka noonu bëri njaalo nuur ci njaalo ba mel ni kuñ jur kuñ jur ngir njaalo rek bala gaa dee da nga dem safara naka noonu tamit fen rawatina fenal sayduna muhammad mi ne woon man kadaba alay mutaammidan falyatabawwa maqaduhu fi naar su ko defee kon nag loolu day yóbbu nit safara su ma namimatu topp sax di rambaaje nit ñi diggante di yàqu day yóbbu nit safara dafay màbb tamit sa jëf ji xuquuqul waalidayn dëggee sa ñaari waajur dañoo foor ku dëggee sa ñaari waajur yàlla lem sa fat lem sa wërsëg nga màbbu sa jëf ga dem safara in lam yatubbu tuubut min saa ci lii yemutu dana dee ci toroxtaane dee ci kéeféer dee ci muj gu ñaaw duuna may ni ci lu du fet yii ma mujj a wax muy demee ni xoote wilaaya ak gongeeku di sëriñ sëriñ lu ta dara neexu fa boole koog di lor nit ñi bëril njaalo bari fen di fenal yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ak rambaaj ak dëngee waajur dafay màbb sa jëf yi ba pare boole ko nga dee ci muj gu ñaaw mooy dem bay dee yàlla rekki sa gëm yàlla gi nga dee ci kiifir kaza naka noonu sabul awliya ŋàññi waliyu yi ku ko def waliyu yàlla yi ku leen ŋàññi sa jëf ji ma baax ji màbbu nga dee am muj gu ñaaw dee ci kiifir nasalu ñu ngi ñaan man kalakana kañu bind luñ koy ñaan amaana kóolute min dil mexan ci yi lay nattu ci ci yi musiba ci yi lay gàllankoor sakartuha tudd naa lépp nasihata ngir laahi bi ma maam xale fi laay ci yàlla qabla wuqu'i hadihi almanahi njëkk ngeen i tabbi ci yi ñi tere te yi ñi tere ku ca ne da nga torox wa taalibil xalaasi kii sakku ak mucc min baadi wuqu'i gannaaw bi nga tabbee ci yii yaa ngi doon dëggee say waajur yaa ngi doon jaalo yaa ngi fen yaa ngi rambaaj yaa ngi sàcc yaa ngi lekk xalal ju xaraam yaa ngi bañ ci waliyu yàlla yi su boobaa maam kalifa ne li la mën a dimbale fiha fa bi tawbati mooy tuub ay dan ba tey waxu doog torox gaawal nga tuub rikkee ko ci bala ngaa dee wal muhlikaatu yiy xalage xam na ci yoo xam ne waxuma la murtat waxuma la kon mabbu jëf waaye dafay xalak muhlikaat la ko yonent bi tuddee ah waxi ñoom xayru wir xayru riddati bu dul bu dul murtat min ha tukkee koo na ca ah xalaasu mucc xat yuraa defe gis ko ba tawbati ko tuub mooy yema la njëkkoon a wax yëpp nekkoon muhlikaat yi te muhlikaat yi manqué na mu muhbitaat yi yooyu yëpp bu ci duhul murtat borom bu tuubee rek bu dee ko ca bàkkaar ba réecu na duutu ca dellooti dogu ca su boobaa yàlla jéggal ko waaye nag riddatu moom duggaat ci diina ji rek ndax génn nga yow yow yow dañoo dagg sa abonnement bi da ngay dem abonné jihaat waaye yéen yëpp nag yaa ngi ci yaa ngi ci abonnement bi ba tey dafay laaj rek nga dem ñi defaraat ko rek ba mu gën a leer moo tax mu ne yi ma waxoon nii yëpp dafay xalak nit ba murtad moom boo ko defee torox nga waaye yëpp bu dul murtad boo tuubee yàlla nangul la ko waaye murtad moom dangay ngay duggaat ci diina ji carrément sa abonnement ba lañ dagg waaye am na ci yeneen yoo xam ne tamit nag tuub mënu ci dara de dangay ngay delloo xàq nit ñi mooy yi ma waxoon yoo xam ne da nga da ngay lor nit ñi liggéeyloo nit ñi xamee leen seen xàq ak demee ni jëw ak demee ni rambaaj ak demee ni lépp lekk xal nit ñi moo tax mu ne yooyu moo tax si waa xuquuqi naas loolu xaqi nit ñi fa taxlilu xeweeku mooy sàkkoo daganal min min ahli mooy xeweeku min ha min ahli ki ñoñam ji mooy musal wasaal li jëmil lu rafet la xeweeku mooy dem koo xameloon xaq nga ne ko sama digganteeg yow nanga ma ci doxoon mi ngi nii buy xalal nga delloo ko ko buy kàddu jërul nga ko koy wax nan ko nan ko fas ki sa xol rek jéggalu ko ne ko baal ma ak ji dox suñu diggante ci li ma xam ak li ma xamut bul na baal naa la rek mbir ma jeex waaye jërul nga ne ko baxal ma àq dama laa jëwoon baxal ma àq dama laa fenaloon baxal ma àq dama njaaloo woon ak sa jabar mbaa sa doom déedéet moom daal boo ko fasee ci sa xol te tuub ko rek ah, moom bu ne la baxal naa la rek yàlla jégal la waaye xàq ji dox sa digganteeg sa morom boo ko jégaloo yàlla du sotti de fokk sa morom nga koy fexe ba xewee ko sa digganteeg moom ba mu leer naññi na ko daan yonent bi daal defee ko ku ma ameel xàq ñëwal ma fay la bala ñoo xegg ci foo xam ne xaalis amu fa dërëm amu fa daraja amu fa sa sa jëf ju baax ji la ñuy jël fayee ko gaaya bu yooye jeexee te jeexu nga jël lu boni gaaya këppal la ko bu ko nga mujj dem safara moom la yonent bi ne na mal mu fallas kon yooyu yëpp jar naa baxi xel su ko defee nag wa fi wa fi wa fi wa fi nubuwati ci nubuwa wa fi rubu ak borom bi yuqutalu kon bàkkaar yi dañoo gën a réyante yëpp muhbitaat la yëpp muhlikaat la mu commencé ci riddatu ak ñàkkee teggihin yonantu yi mu ne nag xam na ci yoo xam ne ak demee ni lor doom aadama yi maam kalifa ne nag su fekkee ne murtad la tuubaat dugg ci diine ji carrément moo la mën a jagal su fekkee xaqi diggante sa morom la ak sa moromam nit dem xewee ko sa digganteeg moom ba seen diggante leer moo la mën a jagal su fekkee sa digganteeg xaqi yonantu bi nga ñàkkee teggihin wala xaqi borom bi nga ñàkkee teggihin saaga yàlla mbaa nga saaga yonantu bi ni ko nit ñi defee léegi ci internet bi jël seeni sëriñ di ko toll léegi yàlla mbaa ñu ko toll léegi yonantu bi loola moom ku ko wax ca saasa dañ laa war a rey génn nga ci diini mais en même temps pen ba ci tegu mooy dañ laa war a rey moo tax man wa fi nubuwwati bi ci xàq nubuwa wa fi rububiyya ak ci xàq yàlla xàqi borom bi yuqutalu def na ray man xat sabbaha képp ku leen saaga alaa nee ci lu feeñ nañ ko yóbbu ci boulevard yi place publique yi ray ko jaas yi ñëpp gis ko mu nekk jaaj gi ci ñeneen ñi ba kenn dootul ñemeeti wax yoo xam ne waat naa ci yàlla bari na fi tey ñoo xam ne la wax fekkoon ne jaasi lislaam mooy dox dañuy dagg seen dox yi te mu bari lool ci ji jamono lii ñu jëmee ko ci wàllu yonantu yi lii ñu jëmee ko ci wàllu yàlla lii ñu jëmee ko ci wàllu ñàkk teggiin goo xam ne ñàkk kersaa ko lal wa xayru kulli lafzatin lépp maanaam lu dul baat sariha bu leer laa xat la der rey nag bal tawbat tuub saa lii saxiha lu wér la su fekkee da ngaa wax wax joo xam da ko jëmale ci yonantu mais leerut mën naa jamtalu lii mën naa jamtalu lale wala nga jëmee ko ci yàlla mën naa jamtul lii mën naa jamtul dugul sariha kenn du la rey waaye bu nekkee sariha boo xam ne bu leer naññi la amul jamtalu lii rek la mën a tekki dañ laa war a rey in lam yatub su fekkee tuubut min riddatin ca murtad ma fa yuqtal ba rayeef ko wa zawju a jëkkër ja yoosal def na ber ko man zawjatihi comme tey suñu lislaam bi affaire yi laay la ñuy woote rek te loolu dara du ci lislaam kenn kon lu la neex woote lu la neex gëmal kenn amul droit li nga nekk kenn di la ci attaqué te la nga nekk dara baaxu ca comme yow saaga nga yàlla sax kenn amul droit wax la ca dara saaga nga yonantu bi kenn du la wax dara murtat nga timit kenn du la rey ndax loolu amu ci su boobaa maam Khalifa moom la fa sës mooy dañuy séparé sa digganteeg sa soxna moo tax képp koo xam ne ni jëkkër nga woon nga murtat sa jabar ja moom keroog ñàkk nga ko dañ koy tas ca saasa ndax xéeféer nga te xéeféer man ta denc ku dul jullit mënta denc kon julit te sa jabar gi julli la comme murtatut mu jeex kon nag ku murtat loolu mooy sa xatte wa zawju yusalu an zawjatihi wa yanbaghi dana yell li qaadin ñeel àttekat bi istifta maanaam mu sàkkoo fite lo mu sàkkoo fite fasqu nikaay firi sëy ba ma maa siwaa lu loolu dañuy tas sëy ba ca saasa firi ko lu nekk fase de mais fasqu lay doon moo tax mu ne na ko dindi ca saasa min talqatin ci firi talqatu fase la ci namu waaye mi ngi ca namu firi fa rubbama tu addi amaan na mu jooxe sax ilaa xaraam gëm ci lu xaraam talqatul murtadi maanaam faseem ku murtad man naa dem sax ba joxe ko ci loo xam ne dafay mujj ñi xaraamal xaraam goo xam ne seen diggante abadan du ko mën a dencati xanaa mu tuubaat waaye nag man naa dem sax ba du ko mën dencati abadan waxuma la bu tuubaatee sax du ko mën dencati ñu ne ko loolu ba am xalifa du muy mën xamee mu ne wasaaka loolu inta karara su fekkee dafa baabu ir irtidaadu murtad ga mooy irtidaadu ahadu hazayni mu tata kenn ki ñaar ñi wa baadu gannaaw ga aadoo ñu dellu si ila nikaay jëm ci say xurimat xaraamale ko filaali ki la teew yow da ngaa murtat ñi tas sa digganteeg sa jabar mayaat la ko nga murtataat ñi ñi tas ko nga murtataat waaye waaye kooku boo murtataatee tamit maanaam boo murtatul tamit dootuñ la ko mayaati jeex na comme baamu nga ko ñaari yoon rek jeex na dañuy tas diggante ba abadan mu xaraam la waaye murtat bu njëkk kay boo dellu siwaatee ñi delloo la ko mais nga murtataat jeex na jeex na ila nikaay xurimat fil xaali eh, foo ko defee nag fas tabdaloo ñu sàkkoo wattee xaraama lu xaraam ah, bil xalaali ci dagan manta ne fa haadihi li nuktatul fasqi zan nikaahi mooy sew sewab firi bi la sëy min gay bi gayri talqatin ci lu dugut fase bi aqwalin ma jëlee ko ci ay wax siyaayin yoo xam ne yu wér a wér a wér la kon képp ku murtat dañuy tas seen diggante waaye mën nañ la koo delloowaat boo dellu si waatee boo murtataatee nag dañuy tas seen diggante dellu siwaat nga tamit duñ la ko mayaat dafay nekk lu la xaraam ndax yow dëgg-dëgg euh, sa mbir sa mbir leerut kon nag lii mooy dénkaane yi na ko xaadi joxe ci firi sa yi borom murtad yi te dañ leen a waroon a rey buñ leen reyoon sax duñ fa nekk di firi sëy ba waaye comme rey rayuñ leen nag kon nañ fas nañ tas sëy ba ca saasa ñi bañ a ñi bañ maanaam fekk ba muy del siwaate bu del siwaate ñu delloo ko ko waaye nag ki takkaat gu bees waaye bu fekkee dafa murtataat ñu tas ko dutuñ ko ko joxati mukk nag li la maam Khalifa wax kon nag léegi ndénkaane yi Seexu Tijaan yaa ngoog jeex na lépp maam Khalifa Ñas wayal nañu ko jëlee ko ca nasru yóbbu ko ca nasmu moo tax mu ne hunaa fii intahat la jeexee intahat la daytale rasailu rabbaani yi leetar suñ ko ñu borom bi muy Seexu Tijaan ar rabbaani yi xudwatinaa mooy suñu royteef wa cheyqinaa mooy suñ sëriñ bi Tijaan yi xutbil wujoodi mooy xutbu mbindeef ba bahjati samaani mooy taaru jamono insaanu ayni alimi mooy ñuul ñuulu bëtu bépp xaalam bi xam nga bët la cay ñuul mooy secret ba ñuul ñuul boobu ni ma amee solo ci bët ni la Seexu Tijaan amee solo ci xaalam bi al insaani yi bay ko jug doomu aadama jaxal naa yàlla nañ def ñu raxmaanu yàlla min ayaani ashaabihi ñi bokk ci mi taalibeem ya ñe nañ ko nañ ca bokk fil helmi ci xam-xam wala irfaani xàmmee su ko defee nag waaye ponkalam muqaddam laa xamoo dara juboo xamoo benn cër di tromper ñu xale yu xamul kilifa yi ak maanaam jigéen ñu nangut sëy ak góor ñu bëgg mag mag ñu bëgg ku leen mosal ñi su boobaa tabaarakallaahu toroxtaan rek la lay jural ak mboolem ñu la ko topp na samtu nose naa dura laftiha wurusu baatam ba bu ko defee moom maanaam baat bu rafet ba mel ni wurus mitlal marjaani ku mel ni pepperu marjaan fii simti ijaasi ma def ko ci ràngam gàttal wa usloobil bayaani ak usloobu biral da wax ju rafet nazamtu durra lafiha mithlal marjaani fii simtil ijaasi wa uslobil bayaani xoolal ma istiaaraat yi rek xoolal ma tamit tabaarakallaahu majaasaat yi nga xam ne moom lay jëfandikoo ko nose naa leen wisaru seexu tijaan ya mu rafet baat yaa nga rafet ñi tànn ko ba mel ni wurusu marjaan te mooy ay per lay doon yu taaru ma def ko au lieu que ci ràngam jongama mais dama koo def ci ràngam gàttal guddut bay yokkatal waaye gàttut bay yàq ma def ko tamit ci usloob boo xam ne bu rafet boo xam ne bu leer naññi la lu nit gàtt-gàtt aliwa ma man nga koo jariñoo boo ko liiree man koo xam summa salaatu wasalaamu tayyibayni ñaar yu teey yile mu mustafa yàlla nekk ci ku ñu ramuloo ko imaami saq lay ni kii sang ñaari dëgër bopp yi muy nit ak jinne ñoo gën a dëgër bopp ñu yàlla bind ñoo gën a doy waar ci jaami yàlla yi nit jinne moo tax ñoom ñaar sax ñooy fees safara aa ah, mu ne nag def naa ko jinne yi mën nañ koo jëriñoo man bind lu ma nit ñi rek de nit ñi ni ñuy jëriñoo mbindam Seexu Tijaan ni la ko jinne yi jëriñoo ni nit ñi di jëriñoo mbindam maam kalifa Nges ni la ko jinne yi jëriñoo wa alihi wa sahbihi hudaati mooy ñay ginde o man ak képp koo xam ne topp na mi ne saadaat ci ay sang lii lépp mooy dénkaane yi Seexu Tijaan dénkaane muy dénkaane yu ama am njëriñ kenn ku ci nekk war koo jàng fexe ba xam ko maam Khalifa Niass jël ñu ko jegeel ñu ko ndax nekkoon na lu sori nekk ay wisar waaye moom nag mu dimbali ñu ko defal ñu ko ay nafmu mu nekk loo xam ne tey euh, mën nañ koo jàng mokkal ko man cee jëriñu man cee jëriñe na nañu yàlla fayal maam Khalifa Niass yàlla taaf ñu ci barke may ñu cofeelam yàlla fayal ñu seexu tijaan boole ñu ci kàngaami tariqam bi yàlla fayal ñu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla fayal ñu boppam def ñu dëgg dëgg jullit may ñu mujj gu rafet xiir ñu ci boppam waa boo ma toppee nag ma continuer ak yow tamit ci xasida bu am solo boo xam ne maam kalifa ñas moo ko def ci Seydil Hadji Bali ki ndigal tabaarakallaahu keroog bu benn taaliba réeree ñu koy dégg ndar baayam xebal ko fa ne ko na nga jaar ci Seydil Hadji malik nga nuyu ko feddali li ma sama kóllëre gi ma façon ak moom su ko defee dak ba mu fa demee maam alaaji Malick dalal ko teral ko teeru ko dalal ko ne ko wax ma ni taalibe ba meel mu wax ko ko mu dig mu mu digal ay taalibeem ña fa gën a niin miin miin ndar ñu fexe ba feeñal ko maam Khalifa keroog bég na lool defab xasida tabaaraka laaw nam ko defee woon ki Cheikh Omar Fuutiyu te dundut dajeexun jamono nam ko defee woon tabaaraka laaw ci baayam ju tedd ji Alaaji Abdoulaye Niass nam ko defee woon si Seydi Aliou Harasim nam ko defee woon ci Seydi Aliou Tamasidi ni mu ko defee woon ci Seexu Tijaan ak kàngaami tariqa yëpp noonu tamit la ko defee tabaarakallaahu ci baayam bu tedd ya Alaaji Abdoulaye Niass defee ko noonu tamit tabaarakallaahu ci Seydil Haaji Malick waxoon naa la xasida bi mu def tamit ci Serigne Touba Xaadimu Rasul kon danaa la firil xasida bi mu def ci Seydil Haaji Malick wan la ne nit ñëpp mag ñëpp benn lañ ñi xamul rek ñoo xamut dañoo sonn waaye ñoom ñëpp zuriyatun baaduha min baadin boo ma toppee danaa la indil loolu lépp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.